ci suñu président bi surtout nee na ñu ngi sant yàlla bu baax di julli di sëlmal ci kër bi def ci Imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na di sant bu baax way bi bu góor ak bu jigéen man de waa jigéen man ak man lay soxla yow yow la jël seen man wala julli yàlla bàyyi leen ci suñu président ba sa kanam ak kanam ak kanam président bi su ne kii maanaam dëkk bi nee na damay wax si moom dama ko wax xam na ko nee na kon lanu xam ne bés bii képp ku fi ñëw yàlla ak jëmm ji la muy bu ko ndax seen wéy ku nekk nga jox ko cëram xam nga yàlla xam na jëlul téléphone seetu wul nit yëgal la bés bi dafa doon seetlu rek moo ko bu koy laajal tool mais nag léeg-léeg nit ñi ñoo koy woo dafa buuma woo nañ nga dem gën ci loolu ndax diggante bi mu war a am ak askan bi léegi nag boo nekkee njabootu jiw loo am loo mel dañuy doon rek ci siiw moo la waaye li am buuba boo ko liggéeyal boo ko relation yi mu am ak nit ñi moom moo waral ku nekk déplacé léegi nag moom ko ñu ko kàddu nee na fi ñuy jeexale bi si des ginnaaw bi ñu ñëw kilifa yi ñëw yëpp te nee na naa leen def incha allah nee na lii bàyyi di def nee na su ko xool fii njaboot moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke moom Cheikh Mouhamadou toog rek yow yow am nee na ñu ñëw tàq nee na lépp dafa doon doon sëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ñu fi mën a lim ñu fi teew Serigne Thiam Thiaw Laye fa tabarakallah mu ngi teew Serigne Mame Makhtar Kébé di suñu Serigne di suñu kilifa te moo ñu def salaatul faatiha mu ngi ci toog Serigne Sidi Ahmed moom Cheikh Ahmad Diakhaté si Dabakh radiyallahu anhu mu ngi toog Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Habib mu ngi ci toog Cheikh Alassane Sène mu ngi ci toog Serigne Aljuma Ba Tek Ardo mu ngi ci toog fa tabarakallah Serigne Cheikh Ibrahima Serigne Moutala Mbacke mu ngi ci toog ak ñoom waxtaan fii ci nga xam ne moom mooy grand service de Dakar. waaw ak suñu mbokk président yi mu wax nii tam teew la. sa kanam nan nga gisee bés bi tey. waaw waaw bu fort te fort. ndeysaan sa digganteeg Zeyna gis nañu ah, complicité bi. Euh, sama doom rek. ndeysaan yàlla na ko yàlla mu may. li nga gis parfois nga boot ko. parfois dëgg la dëgg la dëgg la kontaan naa trop maa ngi leen di gërëm aussi. ndeysaan lii lay waajur yëpp di ñaan. ndeysaan ndeysaan ah xaw ma mon ami ndeysaan vraiment kontaan mais ban message ngay jox sa goro Adama Bey Adama ba Adama non mais Adama non Adama Adama sama kii la Adama sama sama rakk la maa ko yar ndeysaan donc sotti si ak def si la ndeysaan rakam la téye mhm. donc sama xel ak sama xol dal na mhm. yàlla na ko yàlla mottali jërëjëf kontaan na merci Ah oui! Et bon, là.

waaw te nag taaliba yi loolu lañ def ñu ñaanal la. sëy am barke waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi ah. Ah. yaa doon ndaanaan yaa as jor dama ne réew mi sa ndey maal la fi dégg muy maala mag waaye dégg maal ëpp du dégg maa lépp fit du dégg maa lépp personnalité du dégg maa lépp ngor filim duura ngi noonu sama ju gore ji sama ju baax ji bëgg ma sama rakk ji ci man filim duura ngi noonu nee la nee naa la nee naa la sa ndey sa ndey xam na yaay kan sa baay xam na yaay kan waaye sa askan xam na yooyu yaay kan filim mu gore mi filim mi ci tar waaye filim mi ci jom bi sama rakk ju am jom jaa ngi buuba nduur la sa baay tudd ilimaan nduur la baayam tudd Youssou maa jigéen du rey sa baay benn maa la dégg ci réew muy maa mag sama rakk ji kontaan naa ci yow loo mu samay faj la soxla. mais nag mu. yaa yar xale bi de sa doom la maye. waaw waaw moom sama doom la moom. sa doom la ñuy maye. waaw dëgg la moom. Hmm. te ànd bu yàgg bu ne dëgg la quoi. dëgg la vraiment suñu doom la nekk xale bu baax. xale bu respecté ay papam nag. Mhm. waaw parce que yàgg nañ ak yaayam yàgg nañ ay papam. yow xale ba muy ba juddoo ba muy raam ak lépp fi la fekk. waaw yëpp fi la ma fekk. bilaay waaw te dara su ñaaw. loo leen ñaanal. waaw sëy bu barkeel yàlla na sëy bi dàq ci sëy yëpp nag ci bak Seydina Mouhamed ñu am ci jabar ju barkeel nag amiin amiin te nag yàlla may ko xolu muñ mhm. jëkkëram tamit ku baax la waaw naa ko waaw ku baax la xam naa ko jërëjëf waaw merci merci mon ami Abdou li fi am mooy li war a am waaw Euh, le jeune Adama Beye c'est un gentleman. Mhm. booy bu nangoo liggéey bari valeur def lim def ci réewam. c'est un patrimoine. Mhm. liggéey liggéey bëri ci réewam. c'est un patriote. c'est un patrimoine. waaw maanaam li sant li militaire di def ci réew mi. ndeysaan incha allah rabi bëgg réewam. loolu la Adama Beye def ci réewam. kon yàlla na ko yàlla fa cat may ko gudd fan ak wér mu gis doomu doomu doomu buubu président Bouba Ndour. may ko guro mu yëy ñu takk ko takk bu rafet. bàyyam di ko baax. yu bàyyi la ko nag le président Youssou Madjiguène Ndour. bés baa ngi noonu. ana ndeyam nag. Viviane Chérif Ndour. mu baax mi. Mhm. mooy yaama sama xarit a ngi nii di jàll. ma gunge ko. <laughs> Bakar yaa juddulu xale bi. waaw li olof Ndiaye naan bés sa bés. waaw bésu jàmbur bi bés fekke nga ngénteem. tey sunu bés fekke takkam maa la ko wax. ñu yàgg ak yaayam yàgg ak papaam mu doon nag xale bu yaru Zeyna du xippi sax xool ñu respecte ñu fonk ñu mhm. xam ni ñu mel ak yaayam ak papaam waaw di leen wax ne nag bisam bi jomm ko ndax xale bu yaru la looy yóbbante jëkkër ji non aada ba pare nag ñun ah? paaka ñaari boor lañ taxawee aadama béy suñu gaañ la ñu yàgg ak moom aada nag li ma lay wax aada may nañ la loo xam ne jama waaye yow man aada xaw ma sax lu ma la war a wax yow daal xam loo war a def eh, eh. nay neex rek waaw yow toppatoo ko yore ko te suñu xel dal na ci yow eh, nit baax nga bokk ci famille bu baax Zeyna bokk ci famille bu baax sëy yàlla na si yàlla def barke ngeen am si njaboot gu barke ci barke bi sëñ yàlla dina ko def ndax tey dañoo xëy rek mu taw mais Babacar waaw rafet yére rafet sañ sa xaar mooy waral lu koy daje sa borom mën ngaa am sax mention honorable ndax coono te boo ci amee ñaari doomu jigéen rek ñaari doomu jigéen tí a lè di islam èyí ìyàwó islam ìjẹ́ ọkọ̀ ló ní tó ìjẹ́ ọkọ̀ ló ní àná ìjẹ́ ọkọ̀ ló ní dúró tamamen farklı bir bölümde Abi num sual ga? Num sual ga? Ne ne? Bu var. mais Bijou tournel ma ko robe